ñëpp laat doon wax naan booy wut nit na wut nit koo xam ne lu mu la wax ren bu déwénee waxam dëppook jëfam dëgg la mm-hmm. wallaay dëgg la booy wut nit nit a ngoogee jàppal mm-hmm. waaye koo xam ne boo waxee bu waxee boo jógee rek wax ja dajji ko sëñ blaat nee na lu mu bari njëriñ bari njëriñ bàyyil mu dem dëgg la alhamdulilah bi nu fi toogee yàggul ajuma mm-hmm. samedi samedi la ma waxoon sans borom def defe ko noona loolu nag du xam-xam dëgg la ay analyse la rek ay analyse ah, da nga xam nit ñi nag da nga da nga xam ah, ne boo yàggee ci média da ngay xam nit ñi boo leen xamee mhm. xàmmee leen mhm. xam politiciens yi mhm. li doonoon seen mbir waaw li doonoon mbiru mbiru mbiru mbiru euh, politiciens yi ñu xam ko xam liñ daan gañee politiciens yi damaa xaman liñ daan gañee bu baax xam itam euh, li nga xam ne noonu noonu lañ noonu lañ leen gañee ren te damaa teel seen lool damaa teel a seen ni mm-hmm. politiciens yi dañ daan naxe mm-hmm. ma wax la fii ni la ren dañ leen a wëlbati di leen nax xale yee leen di door <laughs> door nit ñi rek nit ñi duy ñi dóor leen ba ñu jaaxaan fi ne di nga gis politicien bu toog daal di la aji màgget ay waay aji màgget waa aji màgget lii la ma def mm-hmm. gis nga waaw <laughs> ah aji màgget li mu ma waxoon fii ak ni mu demee waaw calculer fi ne sam xel calculer ni aji màgget li ma ko jox ak li ma li ma calculer mm-hmm. ak li ma indil daal ça fait deux ah. mm-hmm. moo tax as gor dafa jafe léegi moo tax manoon bu ñu wut bu ñu wut qualité mm. bu ñu wut quantité waaw nañu wut qualité mm-hmm. parce que qualité du changé. déedéet qualité loolu moo jafe. ma ci profité xam nga man damaa ni maire. waaw ñoo xam ne samay xarit la ñu wan. Mhm. campagne yu ma defuma dara waaye sama maire ngaay mexe. maire Maguette Wade. moo gañe waat. waaye nag dam ba ma fa demee dafa gañe rek ma dem fa. Mhm. ma ne ko xam nga loo gañee. mu ne naa ma ne ko loo wax nit ñi dang koo def. loolu dëgg et puis nekk proche. ba pare changé dëkk ba. voilà je je jege jege jege population. looloo ko dal. Mhm. ba mu yeggee daa ubbi buntu këram. ñépp ñëw ku ñëw mu mu dalal la ngeen waxtaan kafre mm-hmm. mm-hmm. loolu nag yal na ko ci yàlla dolli ndam ma jóge fa jaar ca ndóoy baan ndóoy baan fara moo fa ci laa jëmoon sama xarit dara bi ma mm. ki ma gën a xaritool ndeysaan keroog bi bi muy bëgg soxnaam mm. mu di jànq mu di ko bëgg mm. man la ko jëkk a wan ni ma ndax baax na waaw ma ne ko waa kii de moom soxna la lii nu boole maa ngi moom te bokk dëkk dëkk dëkk dëkk kajoor ndeysaan waaye muy muy xale bu am personnalité am fayda ci li muy def mhm. ba yàlla jox ko ko ma jaar fa nag nu mhm. yónteeg moom ziar ko mais fii ci Dakar mhm. ma am fi nag ñoo xam ne samay maire lañu yoo xam ne léegi rek kenn maa ngi koy wax ni ko sa xarit laa toogal muy Mbayang muy wal joojo wal joojo waaw moo moo moo moo moo moo jël caaro yi euh, xaw ma nu tuddati sax ginnaaw raay noor moom Ndey Njaay Tyson sama xarit Ndeye Ndiaye Ndeye mooy sama xarit daanaka. mais élection ren yi am na ay am na ay nouveauté ah. déedéet yàlla moo du du du aayu gaay yi. déedéet sunu yàlla moo wëlbati addina te ñi yëguñu ko. dëgg la. addina bi. te man euh, Ndiaga benn affaire marqué na ma tey jii presse bi. ñun dañu waroon a def euh, benn mobilisation parce que nag bu fekkente ni dañ ne élection. ñu am ñaari ñoo ah, xamante ni dañuy liggéey ci presse. Ah. yàlla dogal itam seen euh, seen première apparition. ñu jël maire. Ah. ñun dañoo war a seet. mais nag loolu du mën a ne xam nga lu tax. lu tax coxorante. ah man de dama ci ku ne ngay saboté sunu ñaari Ahmed maa ngi lay <laughs> félicité bu a baax a baax borom bisimilah. ci moom moom laa ah, jëmoon ak euh, Ndoye Bane borom borom borom xalaas. ca moom laa jëmoon macha allah yal na yàlla defal leen jàmm. te Ahmed laa jëmoon Ahmed mm. sama xarit la ñoo nekkoon. waaw. waaye yàlla moo wëlbati adduna bi. Mm-hmm. mais presse bu bari ñoo ngi saboté. Mm-hmm. ñoo ngi koy saboté naan waa meeru meeru te fekk na booba. yow da ngaa xamul ni du affaire aay du affaire njàng du affaire dara yàlla walbati addunaam xam nga lu mu ci jublu. Mm. coronavirus la ko tàmbalee. Mm-hmm. coronavirus tax na ñi aayoon ci xam-xam. Mm. aay ci faj. Mm. aay ci yor alal aay ci aju sa kaw. yàlla ni leen tey ma woon leen ni man ni leen mën a. du yéen nee naa leen roof roof leen seen loxo jël ñi ne ci kaw. ñi ci mm-hmm. suuf. Mm-hmm. indi leen ci kaw ngeen bañ. ma wàcce ñëpp. ñëpp tële ci nit ñi ba tey ñu bañ. Sénégal am ci am ci benn affaire mooy def campagne am def politique am gars yi campagne nañ nu ne. Mhm. nu ne campagne nañ ko. Mhm. ay jàmbaar lañ nañ daa def lañ def. Mhm. waaye yàlla ay ci potu mbuur. da ngay weer su ko bëggee réglé day xam benn point bu ndaw. bu mu koy réglé. dëgg la ci adduna bi te nit ñi yëguñu ko. waaw xam nga oustaz. waaw jaga xam nga loolu kon di ñàkk sincérité. yi nga Sénégal. Hmm. adduna ku nekk boo waxee li ne ci yow. Hmm. te muy sa akulaay taala rek Sénégal ne foog na woon. mais du ma bëgg ci sa poste bii dara. wax sa ak laay taala. waaw léegi nit ñi na ko. loolu loolu amul nag. loolu moo ma jaaxal ndax nit ñi naa wax ci ak laay taala. su ma bëggee ci poste mu njàgga bii dara. Mm. wala ma bëgg ci njàgga dara. Mm. du ma ko wax dëgg. Mm-hmm. ndax su ma su ma ko waxee dëgg du ma am ci moom dara. Mm-hmm. nga tëggal naa waaye ki nga jël. waaw bëggal ko sa bopp. te muy nit ku baax. Mm. te nga xam ni kii kat fi mu jëm ñeme na fi te dana fi dimbali nit. kooku ànd ak moom wàññiwu dara. waaye nag boo bëggee nit ku baax si aji màgget waaw xoolal léegi nii bi may ñëw baal ma ma la mm. daf ci benn maire boo xam ne mm. la mu la mu muy campagne maa ko ko yóbbul barke Seydina ma yow xam nga ma sama yow sama xarit nga dëgg la yàlla dafa dogal jumaa ja muy campagne mm-hmm. maa ko yanu yóbbul ko ko te ah. jumaa jooju daf ma ni mm-hmm. mooy sama ci mooy sama résultat bi gën a rëy ci ci ci yëf yi keroog ba ma ko joxee la ma mujj a woo ci sa émission yi waaw loolu loolu nag foo ko maanaam dama lay wax ni la ni aji màggat wax. mooy dëgg ba kilifa yee ca kaw wor rek la ñuy xam nga lu tax. keroog ba am ko ko yóbbulee bañ sam bañ sampal ko ko. Mm-hmm. bisub keroog la ma mujjee woo. te boo ko mooy li ma wax rek ko jot ci àddina. mooy li ma la wax jamono bi ñuy campagne ñi sax jot leen dina yomb. Ah. mais fi mu nekk bu ñu campagne par daal di. a man day man day man day depuis 2000. waaw sama président. ndeysaan Bokar Sadikh. waaw fu ma ko woo mu léegi rek fu ma ko woo damay wuyu. ndeysaan boole ko teraanga nag gis nga amoon sis gële xam nañ mooy kan mm-hmm. barke yonent bi gis nga Mor Waré Guèye mii nga xam ne docteur la banquier la mm-hmm. moo gagné njaarim limaamu laay te nit ku baax la nit ku am teraanga la nit ku am diine xam nga booy ut xam nga koy ut mm. ki am diine ki am diine du wor xam nga luy euh, wor amoo diine jàngoo alxuraan mm. doo déglu doo fréquenté ñu baax kooku lu ma la ko am ñi lay conseillé ñi lay conseillé ñi lay conseillé. Mhm. dégg nga li ma la léegi ku bëgg ci sa poos dara du la wax dëgg. ki bëgg ci sa lu ma la ko woon fii keroog. ku bëgg ci sa poos dara du la wax dëgg. politicien damaa woo. waaw di ma laaj kan ak kan laa war a àndal ma ne ko ñaar. waaw ñaar ñi yaay xool ko ci àndal. waaw mhm. ki yor jikkoy parisol. waaw ak ki yor jikkoy montre bu yàqu waaw mu ne ma ñaar ñooñu ku ma ci àndal ma ne ko ah ki yor jikkoy parasol de tànk téyewoo tànkam bii mm. mënuloo la dara ci naaj wi dëgg la am na ci nit ñi ñëw ci yow waaw tànk defaloo leen lu ñu lu ñu yëgal seen bopp du du ñëw doo ànd ak yow yor montre bu yàqu nag mm. si ji montre bi yàqu woon ren waaw bu déwénee ci nga koy du changé mooy mooy aji màgget comme ni mu wax jeex na man lay damay ñaan yàlla man euh, yal na ma yàlla koo xam ne ndeysaan ku sincère la parce que man du ma wax bugguma sa poste ba duma la wax mm. moo tax ñi ma yàlla booleel ñëpp presque ñoo ànd mm. ñoo bokk jikko ku mel ni Assane Thiam mm. amosis jëkkëri mari mm-hmm. kooku otoom la yor def ci essence am campagne bi yëpp moom dugal ci otoom dinu yóbbu te it la ba pare professeur la amul jot mais nag soo bëggee da ngay mm-hmm. def sama sama sama may daaneele bala ngaa génn ci wàllu wàllu foofu du ci génn sax génn génn gu ma ci dama doon wax euh, daa am kok waaw mënu ma ko bañ a tudd. muy. muy Pape Diop maire damaa bëggoon mu gagné. maire Dakar. waaw damaa bokk ci ñi ko gën a jege ci Sénégal. ndeysaan ak soxnaam su baax li ma gën a jaax li ma gën a yéem ci moom. Ndeye Marie Diallo. moo moo aji dama dama am jumaa ju ca jaamal. jaamal nit wax ma ko ca Makka ni ma soror ba day li sëriñ ba noon mm. teg ci sama loxo ni ma bu yeggee. Mm. sa yëpp yegg. Mm. ma woo ko téléphone mu ma neel sëñ bi mu jógee jaamal ñëw. Mm-hmm. kere ba mu ñëwee ma ànd ak sëñ bi ñëw mhm. sëñ Ibrahima Cissé ak Mapenda mhm. bi ñu yegsee ndeysaan politicien bi yor big ak fooy ak journaliste yi ñëw toog pour bind dañ leen génn leen ca biti ma wax li yëfu yàlla la du politique mhm. kenn du ko béral Pape Diop maire mii daal di génne segu 10 millions ne dem leen tàmbali fu fu mu toll ngeen waxaat ma ko ma matali ko kooku nag genre yooyu ñoo mat a xam yàlla daf ko koy fay te te ma dolli la ci sax tabaski Euh, da daan defi enveloppe jox jabaram ju baax ji ndeysaan macha allah tata Ndey Mbuub maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu si defem moo ma boole woon ak Ndey Mari Diallo tabaarkàlla macha allah muy def lu baax loo xamante ni lu baax kenn du ko fàtte yéen a ngi wax seen maire waaye man dama am sama maire bopp ah, ah. Ah, waaw muy Moustapha Diop bu Louga ku ma laaj ne ma ndax sa sa maire gañe na taxawal <laughs> ma ne na nga ne ma kan kan nga faraloon euh, fi nga fi nga nekk man leen man Moustapha Diop ñu ne ma bu Louga Louga nga wootee man leen Louga laa wootee xam nga ci leen waaw feek feek feek doyulul bàyyi nguur du bàyyi du du du du. billaahi bàyyi bam bàyyi bam ak Bachir moom. Mm-hmm. kon waxuma ko ngir caaxaan xam nga li Momadou Mbaye gar naan bari xar. Mm. du tax ma ngénte ko wasinul moo ma dal ci moom. dëgg la. soxnaam. Mm-hmm. Bintu Rasool sama xarit la. Ndiaye ku baax. madame Ndiaye. Mm-hmm. damay toog ba yàgg mu woo ma. ndey fëri. Faat baa Gueye ñoom. fi mbooloo ma ko dar. Mm. Maguette Fall ñoom ñi ñi ñi sës ca moom. Mm. sama ay maanaam dama leen a formel benn groupe. su ma waxee ñu ni ma. sëñ Njaga Moustapha rek. rek ba yàlla boole maag Moustapha. Mhm. waaye li ma lay xamal mooy maa la koy wax fii tey. fii maa la koy wax. waaw feeg ci nguur du daanu. yàlla na ko yàlla defal barke Seydina. gis nga Mbaye ak mooy loolu moom ma gis nga sama doom bi nekk tribunal Pa Mor Mbaye. ak xaadim ki nekk euh, Italie. waaw xam nga nag man ne naa leen su ma doon président sama doom lay def premier ministre. waaw gis nga su ma ñëwee. waaw damay toog ñu toog ma wax. Mm. ni leen su amee dara ci dëng corriger leen ma. Mm-hmm. ñu ni waaw. waaye yaay ko àndal ma ne ko ma naan àndal ñu ne ma Bokar Kane. barke Seydina Mohamed fu ma de moom ma fa yóbbu. dëgg la te du ma ko ba illaa yow mi diini. muy am solo ma jàppe jaal mm. nga yow xam nga jaal. noonu nga ko jàppee. noonu laa ko jàppee. yal na yàlla barkeel rek. te yàlla tamit ci yoonu njub 628 14 13 00 221 33 841 23 34. koo xamul noo koy def nam la defa tax mm-hmm. nee naa leen Moustapha ñaari yoon laa ko mës a gis ba may dem di faju ji ak ba ma faju jee ba ñëw mm-hmm. te it ba mu may woo di ma yóbbu di ma faji toujours ma wax ko xamuma ko xamuma barke Seydina Muhammad wallaay dëgg la juróomi million def na ko ci sama bët yi hospitalisation biir clinique biir clinique te xam te kat rumeur la dégg rek ñu woote téléphone mook jabaram ju baax jooju loolu yëpp mi ngi jaar nag ci loxo ndey fëri mhm. tabaarkàlla ah, macha allah ndey fëri ma koy nuyu bu baax a baax ah, moom ah. lantinoor la du téyeeg diw bintu rasul njaay nag eh, di kenn ci man kon baayu bamba ak bachir moom mhm. eh, góoru ndey jóob eh, moustapha xamoon nga ne da ngay am ndam la ku leeral bëti nit ñi yàlla leeral sa yëf yàlla ko yàlla yàgg leeral du ma tàyyi di ko wax gisuma ko dégguma ko mais nag maa ko jël posé ko fii ndax xam nga yi may wax ni yëfi démb doo ko fàtte voilà doo gaaw a jàkkaarloo ak moom Ah. te it nag euh, nañu ñaax suñu maire yi ñi nga xamante ni ñoom lañu ah, ñu nommé fraîchement ah, ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu dëgg la euh, euh, parce que nag damay wax ne bi doy bi gën a doon exemple mooy nekk rakku président de la république hmm. ñu wàcce la ci gox ba nga nekkoon dénk ko koo xamante ni un journaliste la ah loolu lu rëy la kon yaakaar naa ni Ahmed Aïdara ñun ñëpp nañu àndandoo man ko boole suñu doole hmm. topp ci ginnaawam jàppale ko mais nag du ñu xam ne yen bi mu yenu diis na hmm. te waa Géejawaay sas nañ ko kon donc na ci bàyyi xel bu baax a baax. xam nga luy plan euh, national. Mm. ceebu jën. waaw. Sénégalais bu mi di jotee boo ko taajee dëkk nag lu mu mënti doon. Mm-hmm. xol ba boo ko xaree ceebu jën nga ciy def. dëgg la gi nga président. Mm. moo ceebu jën nag kaay ma wax la. Mm. ku la jiitu ci néeg dalay woon fu nuy taale làmp bi. dëgg la. gi nga nangu. dafa am solo. dafa am solo mbay yàllaay fal. yàllaay fal yàllaay fal yàllaay wàcce mm-hmm. ku bëgg mu wàcc te yàlla wàccewu ko du wàcc dëgg la ku bëgg mu falu te yàlla fal ko du falu mm-hmm. kon gi nga sunu xol yi mm-hmm. bu nu ko yaatalee def ci sincérité def ci ngëm yàlla lu nu sumb mu egg mais bàyyi sosalante bàyyi wax lu eggul bàyyi jël loo xam ne di ko tekki deru nit te loola xam nga lu ko bëgg a may ndam dëgg la bëgg ndam rek. loolu nag ndam lu xajam ngay am. ju xajam ndam lu xajam ngay am damay ñëw danga may may foofu sama xel dafa dem ci sama koo xamante ni yaay la ci man macha allah ñu koy wax garaase. Mhm. jén ma nga fële ci diwaanu yoof dafa ànd ak euh, PS. nekk yoof mhm. macha allah lu yàgg lool. dëgg ëpp na 30 ans. nekk ci di ñett ñetti di ñett ñetti ba ni yàlla dogalee euh, régime mu Macky Sall bi ñëw mhm. fa yoof dara fëkk ko dara yóbbu ko mu nekk ca la mu nekkoon. kese rek mu jaral ko muy xiif mu jaral ko muy mar muy jaral ko mu lépp. mu ànd ak ngor gu mat sëkk. waxewu ma fenn nag waaye ngor googu nga xamante ni yéen ngi koy wax sincérité ah. moo tax ma dugg foofu ci moom yàlla dogal ko nag muy xeex di xeex di xeex ba suñu jonn yàlla tey ren jii yàlla def ka àndaloon muy Seydina Issa ñu koy ñaanal ndam li yàlla na ko jik jël meeru fi nga xamante ni moom mooy Yoff kon Garassé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci sa mm-hmm. sincérité mm-hmm. Euh, yow sincérité rek lañ la xamee ci biir ci biti ci kër gi ci mbedd mi ci lépp loo xamante ni noonu ngay doxale tey it nag loo ragal ko dégg doo ko wax mm. kon euh, Ndeye Gueye Samb yaay mbaas ndëpp ak salamba ah. seen ndam li yàlla na leen jik di encouragé itam Abdoulaye Diouf Sarr mm-hmm. allah liggéey na ci yoof vraiment te nag nee naa leen man du ma fàtte démb mm-hmm. tey jabaram teral na ma ba tàyyi donc Abdoulaye Diouf Sarr na xool ci umu xayri Guèye ba mu wàccee moom mu yéeg ndax nee leen chaise bi toppal ma toog la rek. te ki ko jëlee ci ay loxo teg ko ci say loxo. dig na la bis nangoo ko ci say loxo teg ko ci yeneen i loxo. kon boo ko yoree rafetalal. jege population bi population bi loolu la ñu soxla. kon ñu ngi koy félicité bu baax a baax Abdoulaye Diouf Sarr di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm. ki nga xamante ni moo fa nekk itam maire Yoff yàlla ko ndam li jig muy Seydina Issa waaye mention spéciale ki nga xamante ni yaay la ci man sœur la chérie la lépp la. Eh, Diène Demba maa ngi lay nuyu bu baax a baax garaase di la ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm ñu ñëw nag ci li nga xamante ni euh, mooy euh, sincérité boobu ngeen di wax mën nañ cee desandi ba léegi ah, xuusee ko ci réseaux sociaux yi mm-hmm. parce que tey jii man dama wax ne man li ma dund semaine bii man jàpp naa ne léegi waxte yàlla tax sax dafay jafe parce que léegi da ngay wax benn wax léegi mm-hmm. nit jël fee sa photo ak sa benn vidéo daal di koy boole ne kii li mu wax ni nangam sangam teg ko fenn te li ngay wax nga te xam fi ko teg mm-hmm. yow xam nga cas bi ma lay wax mm-hmm. te mu nekk cas boo xamante ni tey man mënoon naa ko indi fii ci sama émission mm-hmm. parce que lu mat fukki nit yu réer ay fukki at fukki at ak juróom ñu réeroo yaay ak doom ñoo xamante ni ay mag dem nañu ba sëy ba tàkk ba ami doom te xamante wuñu bokk benn yaay ñu xamante fii ci émission kër gi kon mënoon naa koo indi fii ci sama émission kër gi mais ndekete li lay lor doo ko xam parce que déjà yow yaa ngi bàyyi sa site internet. yaa ngi bàyyi sa télévision. mais bëgg lu neex nit. ba dem defal ko fa émission mu ne la dama bëgg yaay li nga wax nangam sàngam dama bëggoon nga ñëw ma interviewé la parce que kaawu titi bi. sax damay jaar ci digg bi. li nga ci wax nangam sangam am na foo ko teg. mais bu ñu ñëwee ba ci sa biir kër ba jël la ba pare. dinañ la dugal ci lu xóor yoo xam ne. ba ba ngay dee doo ko fàtte. moo tax sincérité boobu ngay wax ak waxte yàlla tax. moo amul. ndekete ña ma doon wax na man lii xam nañu ko waaye ñun danoo toog. suñu yoon nekku ci eh, eh. su ma yëgoon ne sama yoon nekku ci nit ñëpp. <laughs> non moo doon gën a oyof ci man. Hmm. waaw mais ci sama njaboot. mais mais Mbengue bul waxee noonu. nit ñi non dama mer seen xol bu sedd nit seen xol bu sedd. dëgg la bul ko seetati. seetal yàlla ma lay fay. ma lay hmm, gis naa waxtaan nañu. Hmm. am na loo xam ne boo koy faj yàlla nga koy bàyyi leen mu fajal la ko mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi nag foofu la ñu ne wàllu site internet yi amuñu liggéey buur war wax naa ko ko fii keroog waaw liggéeyuñ dara bu ñu demee bay jël ab se euh, événement bu xew sëriñ yi nekk ci kile bi ñu jël ko teg ci événement ba pour boo ubbee rek yam ca dëgg la te te bokkewul ak loolu dara wala titre ba titre seeni titre waaw mooy indi problème léegi léegi nag li ko war a organiser li ko war a organiser ak li ko war a régler parce que dina musa taal réew mi. Hmm. am na lii ma gis sañ nañ koo def. lii ma gis. waaw te yow. barke yonent bi yàggatul. yow dafa am loo xam ne da ngaa yeewi da ngaa yeewi koo xam ne yeew woon na. yeewi koo xam ne. bi ma ko déggee la ma laa woo. ni la ah jëf nga jëf joo xam ne yàlla nga ko jëfal. dëgg la. Mhm. man la mbaa xeeboo ko. Mm-hmm. nga ni ma ah déedéet. ma ni la dey li nga wax ni xaw ma kuy titi. Mm-hmm. xaw ma nu mu demee. waaye bokk gi nar a tas te dafa nara na garaaw. waaw parce que bàyyi nday titi taqan na ci de taq taq na ci rip. Mm-hmm. bu affaire bi jàlloon. waaw maanaam bu ndeyam bàyyi bu daraam feeñut. Mm. ndeyam taq na ba faw te dootu set. Mm. parce que man interview ba ma dégg ci góor ga. waaw seetalul ndey ja. wal nag comme yow fexe nga ba loolu nga toog xam ni ñaari jullite ngi jax ñoo ñoo ngi am problème ñoo ngi ñoo te dafa yomboon site internet yi la tax ñu dem ca góor ga di ko interviewé. Mhm. di ko laaj ay question ci mag mu toll noonu. Mhm. li ne ci moom rek la lay wax du xam lu muy réservé. Mhm. moo tax site internet yi dañoo war a wax ak ñoom. di nga dégg xam nga ñun des fois dinañ enregistré fii benn élément. waaw ñu wax lu garaaw. nga nga ñu yóbbu ko montage ñu dagg ko. ñu dagg ko changé. mais ñoom ci direct la ñuy dox parce que dañu dul journaliste duñu technicien. déedéet gis nga imam. xam nga lu ci xew. aji màgget xam nga lu ci xew. dama désolé. da ngay gis kenn ku jënd. dama désolé. ñaari caméra am. Mhm. créer site yomb na. Mhm. moo tax léegi ministre bi yor loolu maa ngi koy demandé kuy créer site ci Sénégal moo war a joxe code bi. Mhm. waruñu rek nga toog sa biir néeg créer sa compte Facebook wut sa ñaari caméra jox ko ñaari xale yu jigéen yi nekk ci koñ ñu commencé di def ay reportage man amoon naa sama jarbaat boo xam ne. mais ki yor portable am ci biir këram. ci biir néegam koo ko gën a garaaw ko télévision. koo ko gën man maa ngi ci gis kenn koo xamante ni daneen soxna Mbaye yow yaa ne titi musul say Touba. waaw man sama wax bi ma wax daa amul tudd Touba sax ak ci Thiès wala Tëngéej gii ma dëkk. gis nga imam dinaa la wax leen dama ci tuddul ay Touba sax. gis nga léegi looy def. mais jël sa wax jël ko nekk yow. dinaa yow yaa wax ne kii musul say Touba te ku déglu yëf yi ku amul jotu déglu ko danga naan kii lii la wax. <laughs> non mais attends jaxase bi ci nekk bi. gis nga nag Mbaye ku ragal yàlla. boo ragalee yàlla. loola gis ragal la. Mm-hmm. boo dee wax te yàlla tax. loolu sëñ ko wax. waaw. sëñ Tuubaa moo wax ni ma leeral ma wax la ko. waaw eh, eh, Adja Maguette. foofu foofu léegi nit ñi léegi. doxuñ ci loolu de mais duma leen topp. mais xoolal xoolal xoolal ah. suñu kilifa diine yi ragaluñu yàlla. xam nga lu tax. mbay ma ko mbay xaaral ma wax ma internet si ko sëñ Tuubaa wax. waaw wax nii sëñ Tuubaa moo ko bind. waaw sëñ Tuubaa ma faatixul bisri. waaw wal amni wal janna la ko bind. waaw mm-hmm, mm-hmm. dañuy xaay suma taxaf. Mm-hmm. ilaahakal ahad. yaxafka min xawfikahu kullu ahad. kooku lu nee na soo ragalee yàlla. waaw ku la gis ragal la. nee na yàlla tàggat li raglu mu mm-hmm. ragal la waaw jeex na boo ragalul yàlla la yàlla jël lu ñàkk fay danga nga ragal ko. jeex na xam loolu nag moo dal léegi nag may ma tuuti mbayam may ma tuuti gis nga man foofu xam fi mu nekk nii changement de situation am na léegi mala yi ñoo ragal nit ñi daan nga dégg dégg jékki-jékki dégg nit dox na mais matt na ko bareetul léegi amul léegi sa moroomu nit lay matt nit ñi dañu sellatul sunu kilifa diine yi ku leen gën a ragal yàlla ku leen gën a jege yàlla. ak liñ leen ñemeel. te léegi nii leen ñemeel kon kon kon kon. mooy li ma la wax. gis nga mbayam teg sa wax. gis nga ñun ñëpp ay doom aadama la gis nga mala yi ñoo leen gën lu yàlla wax war a xadd karam naa benn aadama lu ma bind doom aadama ma ci gën. waaw du ma ragal mala du ma la ragal. doom aadama nga ni man. Mhm. loo ma wax xanaa xamu ne tooñu ñaanu ko nu tooñ du dellu ginnaaw. Mhm. dañoo xe bàyyi naa la yàlla. yàlla dafay nekk te du fi jóg moonu sàkk jullil ba set jàpp duma wax ma sàmba du wax ma demba barke alxuraan karim du am 24 heures te yàlla faj ko. li ma li des nag mooy. mooy li ma la wax rek. Sénégal xaalis la ñu gëm. waxatuñu dëgg. Mm-hmm. alal rek. senegal nañ yàq mbayang waxuñu dëgg. billaahi dana ñëw léegi ne la mbayang nangam mbayang nàngam ñëw ne la màgget nangam fekk yëgoo noo xam nga lu tax. lu tax bëgg nañu seen 5000 wala seen 10 000 ñii ngay wax nii. gis nga doom dañ leen di yar doom junu yarul mënoo wax dëgg xamal ma la te nag ma doom ak ndey de dafa garaaw de ku nàmp da ngay xool sa yaay waaw ku nàmp lu waaye nàmp moom ngay tokkamte waaw te gis nga ñun ñii di jigéen mm. dañuy takkuwaat nag mm-hmm. xaw ma njaboot gi dañ leen fii ba xaw ma dañ leen di jiital waaye nañ leen sàmm bu baax ci wax lu ñu xam mm-hmm. nañ leen sàmm bu baax ci bañ a maye ngor du bëggee. loolu nag moo indi problème yi tey. ngor du bëggee gis mi li muy wax. waaw moo indi problème yi tey wayjur yi. wayjur yi ngor bëggee. yaay yi ñooy favoriser ñenn ñi. ah, ah sama dooma di voilà. moo sa dafa si xam nga diw mi ci télé bi xam nga diw mi ci internet bi. waa xam nga diw mi ci nangam. maay ndeyam. pour lan. mais te lijjantiwul sax ba xam kooku la muy def baax na na fa ak lu baax. est-ce que diw mu ngi wax lu baax te ndey da daan doom. <laughs> ndey da daan dogoog doom. Mm-hmm. Mm-hmm. doom day nekk ci lu dul yoon ndayam dogoog moom. dogoog ne ko dogoo na ak yow. bañu ko mais dafa bëgg mu wëlbatiku. mu wëlbatiku mais léegi nag ndey ja ci boppam moo lay moo moo moo koy tiitaroo. mooy jàpp ne doomu star la. <laughs> waaw waaw ku sañoon sa dooma lay <laughs> gën mais star boo xam ne. star boo xam ne lan la. Ah. star boo ci lu bon la ko amee fu mu xamee waxee nit ñi ci lu bon la ko defee ah Oustaz Ndiaga. ah loolu il faut il faut ak yooyu ñu ñëw ci parce que dafa am ak yoo xamante ni. Hmm. faaw dinañu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy sunu njaboot te nekk ci internet bi. Mm. Euh, gis nga nit wax la dara sosal la waxtu julli ba ca topp mënoo fexe fexe fexe ba teewlu. dalay métti ah, dalay jaxase. bu fekkente ni gor nga. Mm-hmm. wala liñ lay waxal yow leer na la ni lii yow defoo ko. Mm. waxtu julli ba ca topp mënoo teewlu. toujours sa xel mi ngi ci loolu. donc ax boobu. nga xamante ni nit ki mi ngi koy gàddul nit. que ne wax naa nangam ci internet. wala wax naa nangam ci TikTok wala réseaux sociaux bu mu mënti doon. muy julli bëgg a jàkkaarloog boromam. yow tuyaaba ji mu waroon a am nga fanqal ko ko ndax ñàkk a teewlu sa wax ju ñaaw. ax jooju euh, Oustaz Ndiaga doo ci waxal nit ñi. keroog bi ma ñëwee waxuma la fii dara. ah kay néewuma la dootoo dégg ñu wax ci. ca mbiri papaan yi. waaw dootoo dégg ku ci wax. yëfi Pape Ané. waaw boo mënatul a nelaw doo ci wax. yàlla am na lu maye ba tey. wallaay dëgg la. tooñ baaxul. tooñ baaxul de moom wax na ko nee na moytu leen ma ñaanu ku ñu tooñ. tooñ baaxul mooy li ma la wax léegi. Mm-hmm. tooñ baaxul. ñaanu ku ñu mm-hmm. tooñ. bokkuma dara waaye gars yi nga xam ne dañuy ŋàbb seen kursi yi toog 9h ba fajar. Mm-hmm. di bàcc. di wax ak sàmm gëm yàlla. Ah. ne ci loolu yow nga bon amoo benn protection. Mm. lu dul nekk ci internet bi di yekk ay doomu aadama am na ci loo xam ne sax jëratul ñaan lu ndax ñu yàqu nañu ba pare. Mm-hmm. xam nga am na loo xam ne jàmm bu ko def rek yàqu nga ba pare jërootoo mm-hmm. ñaan yàlla mm-hmm. mais sa ay waajur ñoo war a jël seeni responsabilité ñu ñu bañ laa yàqaale mënal nañ la dara voilà ah kon nag dina ma jaaxal kon doom ju baax laa xamatul mooy lanati parce que am na doom yoo xam ne moom billaahi ku ma ni yaa ko jur waaw maray sans bopp dëgg la ndax nañu mel ak la ñuy def te internet bii dëgg la de euh, mbayang yàggatul de du ngëm-ngëm hmm, dina dina ah. internet bi du ngëm-ngëm déedéet. Euh, internet bi. Mhm. du ngëm-ngëm de affaire xaalis la waxoon naa la fii keroog. mooy li ma la wax rek business. affaire du gëmuñu ko. dañoo dem tukki wala nga nekk Sénégal liggéeyoo amoo xaalis mënoo am dara téléphone yomb na. Mhm. nga am connexion. defar sa kii teg ko nii tàmbali di wax. waxa waxa waxa wax ba ni xaaw comme am na fay. am na suivi ba léegi am na ay publicité. Mhm. léegi publicité ñi euh, euh, annonceurs yi dañ ciy ñëw parce que ñoo ngi lay seetaan kon kay loo gën a wax ci lu ñaaw rek da nga koy xeeb mais àq ji ci nekk ku ko xamoon nga bañ a seet sa digganteeg sa borom àq ji ngay wax sax àq ji ngay wax sax mm. ni nga julli mm. ñaan yàlla moo ci gën a woyof mm-hmm. Mm-hmm. xanaa xamoon ni yowmal xiyaamatil akbar nit dina bëgg a romb mm-hmm. doon jaamukatu yàlla bu wér liggéeyal yàlla ba ba jóor fa ay njëndi jóor fa bagage yu bari ba bu yegsee day sëme xam nga semé. day semé ah. dafa moo daan day doose. <laughs> ah day semé di doose tàntu mbagg. mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si ñu ngi lay ziar tur bi ak fooy wootee. waa Adja Mbaye na nga def man la Adja Sukay Mbuub. Roxoy Mbuub. Sukay Mbuub Sukay Mbuub. Sukay Mbuub. waaw maa ngi ay ca Sukay yow rek la ñuy déglu. di sa sotte bu mag a mag a mag nag. jërëjëf ba nga ñëwee Côte d'Ivoire ñun ñi nga fa fekkoon. ndeysaan wax nga dëgg. ca Treichville. Treichville wax nga dëgg ca dëkku Thiamène. ñun ñii ñu ko fekkoon ba léegi nag maa ngi leen sopp su ma ko jot damay sopp di mu ne damay woote du ma la jot. ndeysaan loolu jeex na tey. waaye maa ngi lay sopp di la gën a sopp di seet sa waxtaan di déglu sa waxtaan. dëgg la Mbow. waaye te gis ngaa jàmbaay ak baax la day defal gis nga nit bu baaxee dara mënu ko yàq. dëgg la walaay moom. te yow sa tur dem na sa jëf dem na sa wax dem na. ndeysaan te ñu la bëgg ñëpp ñu ngi lay déglu bu la dara ndaxal bu la kenn déstabilisé. walaay dara walaay dara nag. waaye gis nga li ngay wax ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. dina tëj àddina bi léegi léegi léegi. wallaahi azim wallaahi azim te ci Sénégal lay jotee yàlla musal te musal si nag yenn njaboot yu baax yi. amiin amiin amiin. maa ngi lay nuyu di nuyu Ada Mbaga di nuyu nag oustaz moom nga xam dama ko sopp te nga toog ak moom. Njaga Seck maa ngi koy sopp bu baax a baax di ko nuyu. boo paree maa lay jox ni numéro dëgg yàlla ndax ma jox numéro ma maa ngi lay encouragé bu baax bu la dara def saa jërëjëf jërëjëf man yàgg naa la topp Côte d'Ivoire ba ma ñibbi si Sénégal léegi maa ngi li ci kunun dëgg la ci te awoo ja fi laa dëkk dëgg yow sori woo ma nekk sa soppe nag ndeysaan sa soppe laa de dina bëgg si biir xol dama lay jox numéro yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay ndeysaan amin amin te bu la dara déstabiliser bu la dara ragal lool da ngay am fit taxaw li nga wax yëpp dëgg la li ngay jëf dëgg la dëgg la wax bu rafet ngay wax jëf bu rafet ngay jëf jërëjëf jërëjëf sol bu yiw ngay ndeysaan ay wax yu yiw ngay wax. ndeysaan jërëjëf Mbuub. kon yal na la yàlla yàggal. allahumma amiin Mbuub. waaw jërëjëf bëgg naa la nag te du ma la bàyyi Mbuub. nag ma <laughs> leen mës <laughs> a bàyyi Mbuub maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko kontaane di nuyu képp koo xamante ni yaa nga Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Thiané Ndiaye këram la ñu nekkoon Treichville c'est vrai wax na dëgg may nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Moustapha Fall. Mm-hmm. Euh, jiite woon sénégalais yi nekk Côte d'Ivoire maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm waa kunun ni mu ko waxee yëpp kër Ndiaye jàpp njaxiraat ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen kontaane ragalu ñu tiituñu parce que nag bu fekkente ni da def mbir téeméeri nit ñaanal la euh, ñu ñu gis ne téeméeri nit xool nañ ko Euh, juróom-ñetti fukk yaak juróom-ñetti yëpp apprécier ñaanal la ñaan yoo xamante ni ñaan yi sax dafay diis déjà ci sa kaw parce que da nga nit ñi lan laa leen defal ragalu ñu tiituñu ah parce que nag euh, la macha allah li sama yaay ji daan wax biram ci wari ngéey ci wari ngara la barke yonti yàlla Muhammad kenn mënuñoo génneel dara loo xamante ni safaan la donc euh, amuñu dara loo xamante ni dañ koy ragal mais boo gisee ñu ragal mooy benn poids bi nga xamante ni li ñu def am na ko maanaam ñun dañ ko def noonu pour leeral te yàlla mi ma tiim xam na ni dinañ ci gën a amaat ay leeral parce que dañuy yem foofu mais taxawuñu dañuy dox ci suuf te lépp mu ngi leer li ñu waxoon lépp preuve yaa ngi ñëw donc du ñu gaawantu te bu boobaa bu preuve yi duñ ko yóbbu ci situ kenn fii lañ koy indi teg ko parce que audio yeeg yëpp mi ngi ma am ñu ngi nekk en contact avec la famille de euh, depuis la Mauritanie famille ba ñu ngi nekk en contact ak góor gi fa laay yemagum pour l moment du ma dugg dans les détails mais dama wax ne boo gisee poids bi mu toll noonu man dama am am tiit fi Sénégal xam nga ki la ki la menacé wala tooñ ñu dawal tuuti rek nga gis dara xam nga kooku moom tiitalu la. <laughs> xam nga da ngay xam ni sunu borom ànd na ak mais man xam nga fu ma tiite hmm. Sénégal. fa la jëm. xam nga soxna si ne na àdduna euh, bi dina takk hmm. ma ne ko boo moytul ci Sénégal lay jëkki xam nga lu tax man bu ma boo duggee TikTok nga xool euh, Gabon ay diw la jaay. ay lu yokk yeen lu yokki ange Congo produit sangam taalal nangam defal nangam Sénégal rek ngay gis ku jël photo njaga tek ci ginnaaw yow njaga sekk yow <laughs> <laughs> yaa ci jàkka ji di wax Sénégal rek nga koy gis mais lu tax lay dëgg la lay dëgg maa ngi la doon wax léegi man bàyyi naa sax yégale leen waxtaan man ah, bàyyi naa na yow non non non ay pour nit ñi xam ni loolu lay jariñ mm-hmm. ci diggante waajur ak doom rek. dëgg la dëgg la mënal nga doom ja dara. surtout. Hmm. non mais ndéem sax ndéem ak yooyu yëpp yaa ko def. ku ku ñàkk fayda ba mënaloo sa doom dara yow yaa xam parce que yaa ko fi jëkk. waaw yaa ko jëkk a judd. Eh. yaa ko jëkk am lépp. soo ñàkkee fayda ba mu ba mu doon sa kilifa yow la. mbaa yëg nga ne wuy dana jur xatax. ma waa d'accord waaye dama lay xamal ne ku ñàkk fayda man man sama jaboot dem naa ba futti ku di xeex ak moom. loolu waaw da koy jar. da koy jar parce que baayam. da koy jar na. Mm-hmm. te bëgguma ëllëg ak si biir lii may bëgg a wax dal ma. ñu ne doomu njaga yàlla nee na kenn ku ne ci yéen ab sàmm nga. Mhm. te boo yegsee yowmal xiyam dinaa la laaj li ma la dénkoon noo ko sàmmee. Mhm. ah wax yàlla la. kenn du ko yàlla laa gën a wóolu gaa yi di. dëgg la na ma rey na ma sama doom rey. waaye wax yàlla jooju duma ko dindi. déedéet waaye nee na bu yowmal xiyam ne di nga gis ku liggéey liggéey bu rëy. bay sëme. Mhm. di romb sa borom. nga xam ni yow doo jaar fenn da xam ni yow sa étiquette bi nga yor àjjana direct nga tàllal ko nii pour euh, ki ne ci bunt bi. waaw la ah yow. VIP ngay mën naa dugg nga dem bay dem sa doom daw katamu ca tànkee. ne la bàyyi mm-hmm. ne la ne yàlla kii du dem. am mu ne ko lu tax mu ne ko yee du dem sans bàyyi. Mm. kii ma tax a bon. kii moo ma bàyyi woon moo ma seetaanam moo noon mënut ci man dara. dégg nga. suñu borom ni ni ni ni policier bi de delloowaat ko delloowaat ko mu taxaw ne parce que problème waat ko. parce moom mii la ma ko waxoon ko. Mhm. keneen ki ci des. waaw kii teg ci deru nit lu bon. Mhm. di waxal nit lu bon. gañ na ni boo xamalee nit ku bon. sëñ bay jaxate nee na. bàyyil ayib yi ngay lim yow te te toppatoo yow sa ayib. Mhm. ndax ayib judul sa ayib joojee ayib du ayib. dëgg la ayib judul sa ayib. joojee ayib du ayib waaw ku nekk yaa ngi yor sa paan. di wax soo jàmbur léegi mu ni bu yóomal xiyaamee di nga gis koo xam ni moom liggéeyal yàlla rek la xam waaw musta mooy yàlla musta def dara lu naqari yàlla mm-hmm. moom itam mu dugg dem ba yor kartam di dugg benn waay xool ko daal ñëw rek song sumi dindi ki ba ni yàlla kii moom mënagul a dem mm-hmm. suñu borom ni ko lu tax kii defut mu ni ko mani kii mënagul a yooyu nag yàlla xam na yëpp waaye day leeral waaw mm-hmm. yàlla mu ni ko kii daf ma amee lan àq suñ borom ne ko a ah, kay daal di yëkkati kayit wa daal di teg ci kaw taabal ji. ni ko àq jàng ni ko waa lii day diwa yow a diw mu ni ko ah mu ni ko kii xam nga ko mu ni ko ah, mu ni ko lii la yàq ko defoon. mu ni ah, kon nag nan fay ko bala ngaa àq ja. Mhm. mu jëf ja. ñu jël ñu jël jëf ja di ko jóoral waa ba mu jeex di ko waa ji ba mu jeex mu ni yàlla man de sama yëf ya jeex na di mu ni ko ah déet man du ma tooñ de. Mhm. waxoon naa leen lu leer. malaaka yi ne ko bon moom yëfam yi jeex na te àq ji jeexagul de. Mm. yàlla ni kon jël leen lu bon yi waa ji ngeen tegaat ko sotti ko ko jeex na. te wax yàlla du deñ. déedéet du deñ kon nit mat naa bàyyi xel. ci mm. gis nga gis nga gis nga oustaz ci deru nit te war na toppatoo sa bopp. Oustaz Ndiaga ah, gis nga loolu bala maa ñëw ci Oustaz Ndiaga dama lay ñëwal ci El Hadj Ibrahima Sakho ne na bari na looy dégg riirum sàccee sàccee sàccee waaye nga ci biir mbooloo mi moo ko dàq sax bu nu ko waxoon bu ñu waxoon li mu nekkee ñu bàyyi sàcc ba topp ko dama toog sama doom bu jigéen góor Pape Mor Mbaye mhm. ñuy waxtaan ñu am nañu habitude boobu mhm. dañuy waxtaan ndax mu lépp lépp famille moo ko dëgg la dëgg maa ngi ko ñaanal jàmm ak salaam mhm. di yëkkati fami bi yëpp seen nuyoo di ko teg ki loxoom goro yeeg ñëpp mu ni suñu gàttoon xel dañuy wax ni sunu yaay ñooy sunu yàlla man ko lu tax mun ma yaay sunu àjjana mu ngi sa ndëggul tànk kon jaamu la jot na man kaa mu ne ma di bañ loolu la naqari bala moo paase di def loolu la neex la yaay rëccee bala maa dee ñu naan bu sa yaay màggatee mm. ci nga koy gën a jaamu foo nga juddoo nga koy jaamoo fa mu mettee waaw yàlla yonent bi lanu wax ñaari wajur mm-hmm. wasila soog a ñëw mm-hmm. mais bu yëkkati sëriñ teg ci kaw sa ci kaw waajur mm-hmm. yàlla dogal nag ñoom ñépp nag ñu ànd ci wax boobu gi nga karoog ba waxtaan boobu ay jooy moo ko couverture ba ñu jóg dem seen yoon barke alxuraanu ka da nga yaay ju baax nga oustaz yàlla dafa def gis nga ñun jigéen ñii góorgóor noonu lanu man billaay def nanu ba dee mais nanu topp ci njaboot gi bañ leen a bàyyi gis liy taal àdduna. waaw xëy na réseaux sociaux yaa ngi ci de. mais gis nga njaboot gi buñ leen wàññiwul. Hmm. lu bari dana yàqu. njaboot gaa nekk ci réseaux sociaux yi. voilà mu ngoog lu bari dana yàqu yow seet oustaz Ndiaga rek defuma la dara waxuma la dara nga jël sama photo teg. dama wax oustaz Ndiaga te bi yàlla xam nañ sax boo demee du la xam du la xam. dañoo defee ni jegewuñu Sénégal. ba lu leen neex mën nañ koo wax. man foofu laa bëggoon ñëw solution moo ci lan moo ci solution xam nga ñu neen Sénégal moom ragal nañu. waaw parce que xam nañu bu ñu koy wax bu suba euh, ñu di leen wëri mm-hmm. mais ñi nekkul Sénégal ah defe nañ ni raw nañ ba pare. loolu nag ministre bii waxoon naa ko fii ministre laajte war naa ko ñu ne ma ministre de l' intérieur moo ko waafee ministre yi yor yooyu yëpp. Hmm. maa ngi koy wax kan mooy kan Abdoulaye ministre xam ma. damaa xam ah, man ah, mi ngi koy laaj. <laughs> mooy kan. man ministre de l' intérieur. xam Moustapha Diop wax naa la xaw ma keneen. naa <laughs> gars yi dinañ ma dimbali bindal ma ko fii. ministre de l' intérieur. ah Antoine Antoine Antoine Félix Diome Antoine Félix Diome. ah moom moom gañe lu ma ci xam moom moom moom campagne yu loolu. barki yonti yàlla Mouhamed xaw ma ci yooyu dara. Moustapha rek ok kon ñoo ngi koy ñaanal. ayca ah. mais moom moomu coiffé ministre yëpp. waaw. Ah. wala boog bu fekkee ne am na ministre buñ dénk wàllu réseaux sociaux. Hmm. defe naa am na koñ ko ci dénkoon. xaw ma kan la ci man déggoon naa de ñu ngi ciy def ay jéego ak yooyu. xaw ma xaw ma Yankhoba Diattara la xaw am na ko ko ci yor. Hmm. na góor góorgóorlu ci lool hmm. ministre de affaire étrangères. lii mooy lii liggéeyam la. ana ambassadeur yi jàpp Cheikh Omar Foutiyou Tall di ko saaga. Mm. jàpp Serigne Touba. di ko wax loo xam ni ñi su koo wax. ñëpp naa def jàpp Seydi Hadji Malick wax ko lu ñaaw a ñaaw. dégg sax doy na ci. mais loolu mën naa indi musiba moo xam ne ci àdduna moo xam ne du doon xeex du doon dara waaye musiba muy këpp ci sunu kaw. merum yàlla xoolal xoolal man xam naa ci koo xam ne. Mm. sama mbokk la. Mm. ma nga ca Italie. Serigne maam Cheikh Rafal moo leewoo baayam tudd ko baayam amoon na ci baatin loo xam ne mm-hmm. bu nit musaana ñëw da koy jox ñaar téeméer ni ko saagama. aywa baayam baayam ngir baay faale. waaw ndeysaan. mu wax la waxam ju reetaan ju jooju. buy génn la ajo jay faju mhm. ngir ngir mhm. baay faale. baay dund na téeméer at ak ñaari at xam nga lu muy wax. Mhm. sama baay ci yéefar la dund ba dee. la ilaha illallah. moom baayam rek lay waxtaan nee na baayam yéefar la. waaye oustaz te kooku baayam laa la ni. ku musaan ni tëf. sa aajo faju na gis tey nag tey nag ba ma lijjantee ba xam la tax a jóg loolu. waaw dafa am ñu toog ci ginnaaw. Mm. ñoom itam mag ñi neexuñu leen. Mm. ñu fajee ko nu ne doxut. Mm. ndax waa ji bi mu defee loolu ginnaaw bi rek. yàgg na Italie amul amul amul kër amul dara. fi mu ne nii ma ngi tabax ay immeuble ndax ay saaga. ay waay te ci wëy juróom la ko tàmbale kon réew mi réew mi. kon ah, li ma doon wax mi waxul wala li ma doon wax tiit jot na. waa oustaz oustaz. xale yi de ku leen saagaloo sunu bàjjen bii. ku leen saagaloo rek première dame. Mm. barke Rasulullah bu subaa ñu ñu tifaat. mais première dame du leen faale sax du leen faale xam nga sax. nga istifaar président. nga ki ngay saaga. première dame mu nokk ci donc a géem du la fayul. Serigne Touba bu koy saaga di ko waxi laa sax maa ngi jégul ci wax ji mm-hmm. lu ma wax mais il faut ñu wax ko mais dañ ilaahi ni laawu ma lam yakuni ni yakuni abadan li mumkini yàlla ma may na ma dootul may kenn lu lim ma may lim yow mi jóg nag di ko wax lu bon dan laa yar ci lu bon xañ na nga xam lu bon waaye am na milieu boo xam ne boo fa taxawee di ko wax doo ko dolli déedéet Seydi Hadj noonu mm-hmm. keneen noonu gis nga oustaz gis nga yaa moo tax lu ñu waxal Njaga Sekk ah. wala lu ñu waxal Adja Maguette bu mu ko metti ah. waaw voilà ñi lépp martaba a ñi lépp dara ji ñëpp ñëpp jàmbaajoo ci réseaux sociaux yi ndax man voilà mu metti voilà ci sama xol bi waaw mooy xalaatuma ŋaal sama bopp waaw wax ju bon di ko teg ci nit nit ñëw du yoon du yoon du yoon toog ak man di wax ci nit toog ak man ŋaa boppam di wax ci nit te li may wax maa ko gën a allo allo alo <laughs> allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah allo. sëñ bi bi naka la ak woote wootee. waaw maa ngi koy jégalu waaye seen waxtaan yi am na solo lool. jërëjëf. waaw li ngeen waxtaan dafa am solo lool. jërëjëf. ndax ah, réew mi fi mu toll nii. Hmm? ñëpp war a tiit. Hmm? ndax am réew daa war a am loo xam dañ koy tere. Hmm. waaye réew moo xam ne ku mu neex eh, saaga ku ne. démocratie bi ëpp na de. ndax da nga xam maanaam réew mi fi mu yàqoon mooy bi ne ba am télé buy fay ay saaga muy YouTube bi. waaw mhm. ah, ndax maanaam bu mu toll nii cinq mille cent amee solo. ndeysaan boo ko dugaloon ne Oustaz Mbaye ak Ndeye daa invité woon Oustaz Ndiaga ñu ne waxtaan lu am solo. Mhm. kenn du ko seetaan. vie ko am. du weesu mille. waaye boo ne woon Oustaz Ndiaga ak Oustaz Mbaye ak ña ngay dóorante kurfañ te plateau ba. laay laay koy partagé. xaalis bu bari lay doon. waaw te xam nga ko bu ñu nee ba àgg mhm. tiit tiit jot na. y a problème man de tiit naa barki Seydina Mohamed tiit waaw tiit tiit tiit dafa jot tiit naa de waaw ndax fu mu toll nii bàyyiwuñ kenn réew mi ci ñu ndaw ñu lañ commencé woon léegi ñu ngi ci ustaas yi mm. buñ jóge ustaas ci ñun jëm mm. réew moo xam ne boo ustaas woon ne ustaas Ndiaga Seck ku baax la mm. lay ku baax ñu ñu commentaire la mm-hmm. moo tax ustaas Alioune Sall day wax ni maanaam boo bëggee noppalu bu liir commentaire moom moom moom barki démb laa koy dégg. non bu dul commentaire rek. <laughs> waaw di nga di nga am jàmm. ndeysaan di waaye boo bëggee lu la bindal maam nga liir ko nga ko. doo doo doo def dara mais grand léegi commentaire amul dañuy dañuy jël sa photo teg daal di def seen kii léegi ñu bind commentaire. waaw xam nga loolu tamit yow c'est ça. waaw xam nga Ousseyn yaa mbay. waaw bu ñu defee vidéo ci yow. waaw wax la loo xamante ni lu baaxul la. waaw. kooku jàppal ni maanaam mi ngi mel ni da nga ko jox sa numéro compte rek muy liggéey di bu booy liggéey ba weer dee mu dem defal la mu di la werse. Mm-hmm. wallaay dëgg la mu di la werse. Mm-hmm. wallaay dëgg la. soit da lay werse da defal ay jëf ju baaxam bu fekkee amul lu baax it say suñu borom maam jël ko jox ko ko. dëgg la wallaay dëgg la. moo tax maanaam maanaam doomu aadama dafa war a sant yàlla rek. voilà sant. sant waaw te Oustaz Alioune Sall day wax lu am solo. Mm-hmm. mu ni maanaam bu fekkee ni. man damay déglu oustaz Ndiaga Seck ngir diine. waaw di jariñu ci moom. waaw léegi am ko xas oustaz Ndiaga Seck yàq ko lu bon ba man ma bàyyi koo déglu. waaw léegi bàkkaar boobu kooku noonu moo koy yanu te te léegi réew mi daanaka moom la yàlla xam doy na. la yàlla xam doy na jërëjëf mbokk. te loolu dansé bu rëy la. am na solo. waaw maa ngi rafetlu émission bi baax am na solo. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax sa participation am na solo. boo jotee sunu professeur la professeur des professeurs Oustaz Alioune Sall nga nuyul ñu ko bu baax a baax ah, moo ko Oustaz Mbacké sawarkàlla ah, macha allah dama leen di topp bu baax a baax a baax donc euh, nañ ci bàyyi xel bu baax mhm. euh, kenn waxuñu lu grawan wax dëgg yàlla mais euh, léeg di nga jot affaire yow yu sew ci suuf ci téléphone bi non non non non wallahi azim euh, su ma tiitee su ma tiitee réew mi laa tiit réew mi jàmm fi yam déet xam nga réew euh, Adja Maguette wala Maguette euh, kilifa yi ñuy laal uh-huh. réseaux sociaux yii ñu nekk waxante man li ma ci jaaxal mooy booy balayee rek boo balayee cinq vidéo sixième ba di nga yem ci xale bu ndaw bu ñuy tàggee def rangoñ gu bula gi mais mais ki ragal yàlla dafa baale de téeméeri tàgge boo ko gisee ñaar ñi màgget lañu mais ñeneen ñi ci des ñëpp 30 ans 40 ans. du ñu yegg sax 50. mais oustaz te loolu tiitaluñu. ki ki nga ki ragalul yàlla. waaw bi ci des tam. boo demee bay jël lu bon di ko teg ci nit. waaw xamoon ni bis leen la tëral te doo mën a wax. xam nga lu ne. xam nañ ko dañ koo dund. wa voilà. xanaa xam ñoom réseaux sociaux nañ ba. waaw. buñ la waxalee lu ñaaw. waaw buñ la déggalee lu ñaaw. waaw dañ lay dañ koy jël yónnee la ko pour nga tontu ci ñoom. waaw. moo tax man la du affaire ñu am ay vues jéemuñu la sax xam pour ñaaw naag rafet ak yooyu ñoom lijjantiwuñu yooyu mm, mm, mm. maanaam yow boo tontuwul ci ñoom sax dañuy créer ji pour nga tontu ci ñoom pour ñu am ay ay vues parce que addina bi doxatul liggéey amatul salaire yi bëreetul léegi nag nit ñi jaay seen bopp léegi deru nit ñi daal ci nga war a ci la salaire moom la ñuy lekk waaye oustaz bari le barkeel de ko gën de waaye léeg-léeg nit torox ay dëgg maa ngi ah? gis kenn waaw mu def yaramu neen biñ ciy waxtaan loo loo ma wax nga ni ma nga ni ma léeg-léeg nit di yéene nit dara. fan nga jiitu ko ca. wallaay dëgg la. yéene néeg la boo xam ne taat it nee ni jàmbur la daan génne. Hmm. bii yoon moo génne taat ay taatam. Hmm. ma ne bii ne mooy yemukaay bi. xaaral ah, ma def nii. <laughs> gis nga yéene. mooy yemukaay bi. Hmm. foofu la mën a yem. gis nga oustaz yéene dafa doy waar. <laughs> toogal fii ma yéene la dara di waxtaan ak yow. nag Serigne Cheikh moo waxoon ni. Serigne Cheikh ba tey waxuma ci de du leer ah, na Serigne Cheikh moo ne <laughs> lépp lu waay ji. di yéene nit di ko ko waxal. Mm-hmm. bala ngaa dee dina la dal. loolu am na. nee moo xam lu rafet la. ngay ndeysaan moo xam lu ñaaw la yàlla nañ ci yàlla. nee na bala ngaa waxal nit. Mm-hmm. seetaatal li ngay wax sëñ Tuubaa daa jàngale ne. Mm-hmm. niyatul xayri wa fi'lul xayri wa qawlul xayri. nee na dee leen yéene wiiw. tey jëfu yiw tey waxu yiw. bëggee am jàmm ci àddina. dëgg la waaye nag xam nga nit koo xam ne xamul aw yiw. du ko mën a def. jàngaluñ ko aw yiw. ah waxaluñ ko aw yiw ñoom daal alal rek sama xarit ba sëñ Fallou Diop ñaaw na na de na yàlla yeesal yërmande allahumma amiin sëñ Fallou daf ma daan wax naa ma ma ni ko mhm. mu ni ma ragal nit waaw mu ne ma bala ngaa mën a ragal yàlla da ngay ragal sa morom da ngay ragal sa morom bala ngaa mën a ragal sa borom da ngay mën a ragal sa morom mhm. gis nga gis nga ma ne ko lu tax mu ni ma ndax lépp li ëpp mhm. ci nit la ko yàlla branché sa digg ak sa borom bu li yàlla nit nit a ngi branché ca yàlla mu ne ma moo tax li wolof yi lépp naan gennu golo gàtt na waaye lu ca laal borom yëg ko mu ne ci diggante nit ak yàlla la mm-hmm. mu ne ma moo tax foo mën a toll na nga ragal doomu aadama xam nga lu tax xam nga tax lu tax man bu ma dee seet ci yow yàlla yàlla rek laa gis mm-hmm. Mm-hmm. dañuy toog ngay góor may jigéen maa la bëgg waay barke yonent bi yàlla rek ci plateau yàlla rek laa gis ci yéen billaahi xam nga tax dangaa baax nit day am xol bu yaatu nit da yar boppam Cheikh Tidiane si daan na wax nit ku ne am na lu ko mën a kan mm-hmm. même la yarul da nga toog ba mu yàgg nga rey yar sa bopp mm-hmm. ma toog ak oustaz yàlla rek laay mm-hmm. ma toog ak mbayang mbayang nekk ci moom ci dënnam da nga koy gis xanaa xamoon ni yaram wu rafet xool bu rafete ko yëndi dëgg la dëgg la bu sa xool rafetee sa yaram rafet ndeysaan su sa xool ñaawee nga lëndëm yàlla bu ma waxal nit lu da ngay lëndëm tey kenn la déglu sa xarit ba neem si yàlla sa eh, eh, déggan déggan yàlla na yàlla yeesal yéen xam nga damaa bokk ci ñi ko gën a jege waaw dama ñëw di waxtaan ak moom Euh, di ko xool ba xam nu mu mel. ma ñëw ni ko déggante diw moom li mu def tey. Mm. di jëw. waaw <laughs> waaw. bàyyi bàyyi ba mu ñëw bàyyi. dégg nga moo fa jaar ma ne ko déet kon duñ mën a jëw. moo fa jaar de waaye waaye buñ ko. lay jàll jeer yi te te nekku fi. waaw mu ni ma yaa noo ngi koy yàq ni léegi nag léegi nag li ci li ñu ci yàllay teg moo gën a garaaw lool ma ne ko déggan bul yàq sama jëw dama bëggan jëw bu sell boo xam. <laughs> gis nga Oustaz nee na noppi gar mi la yor bu ko kenn wax lu bon. nit day am qualité. waaw xam nga lu qualité gis nga oustaz soo toogee ba mu yàgg ñeme wax ni. Mm. yàlla na ma yàlla fay sama xol. Mm. seetaatal sa bopp. am na ñu ko ñemewul wax de. nit ku ne war naa wax yal na ma yàlla fay sama xol. Mm-hmm. du ma ëmbal oustaz du ma ëmbal mbayang damay jël lépp jébbal yàlla. wallaahi azim. lu yàlla namm ci man da koy def. lu yàlla namm ci mbayang da koy def da ngay dox ba mu yàgg nga gis kër gu rafet. wala oto bu rafet nga taxaw ñaanal borom. Mm. te doo ko xam. ay waay kër gi rafet na yàlla na ko borom murloo. xale romb la léegi yor oto. nga yàlla na gudd fan doo ko jur doo ko xam. dëgg la ndax ëllëg est-ce que doo lekk wërsëgam. yàlla rek xam te li ngay li ngay li ngay yéene ci njabootuk jàmbur moom même dem na ba ci lion yi gaynde yi waaw den ñëpp nañ leen ñaanal Sénégal la nu demal te dañ leen a jur hmm. su ñu amee ndam ndamu senegal thème bi buñ ko toppee dégg nga thème bu garaaw lay doon du jeex nañuy ñaanal ñëpp nanu yéene ñëpp jàmm. ba pare itam bu nu taxal kenn bu nu waxal kenn lu bon. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. nit daal war nay toog ni yal na ma yàlla fay sama xol. fay sama xol man de ñeme naa ko. wallahi alazim man de man de ŋàññi mi ci njigéen Babel mi ci njaar. billahi wallahi ñeme naa ko borom buy naa ko. daa am wax ju Alaaji daan wax. mais wax bi war nañ koo tëggaat dolli ci dara. waaw mm-hmm. actuellement bu fi nii bu dellu si dina ko tëggaat dolli ci dara. dëgg la wax naa yàlla na yàlla tàppe xol yi ngir ñu baaxam. Uh-huh. mais nag mm. ma ko raxasal ba pare. ba mu set raxas xol yi ba pare soog koo tàppe. kañ may tàppeel. waaw parce que fi moom bu ma kenn tàppee gu kenn. <laughs> non ñii ñii ma gis nii ku la ci tàppeeg nit parce que lalal na la dalaa lalal. waaw mooy li ma wax rek ñàkk sincérité goog déggoo kenn ku na naa aw ma lan aw ma jë. aw ma jë waaw. léegi aw ma jë moo fees ñëpp bëggatoo xaritoo kenn léegi. de mu bëggatoo ànd ak kenn léegi. du ma xaritoo ma kenn ànduma kenn benn benn nit ñëw di ma wax ci nit. Mm-hmm. la muy wax ca waaj maa ko gën a xam fuufi ndoole. waaw waxa waxa waxa waxa ba ni xaw daal di ma ni ma nga noonee eh, eh, maa jox nangam te joxuma ko. dégg loolu. ma ni ko jox jox rek ma ni ko waaw moo tax nga yulli lii lépp mu ne waaw ah, ma ni ko baax na dinaa ko régler. Mm-hmm. dafa génn rek ma dem tiire ci sama banque la mu soxla woon daal di ko ni sawaay la ko jox. dégg nga fi jullit dégg nga loolu loolu mu yëfu jullit daal ma ni ah yow da ko wax sama wax ja ma ne ko ah waaw waaw yegg lépp de. waaw mu tiit waaw loolu day rek mu daa mu daa di woo waaja bi mu génnee rek mu woo ko ni ko ngi tuub maa ko lan la mu ne ko ah yoon ne Oustaz Ndiaga li ma jox ni ma yaa ma ko jox mu ne ko man mii déggal mais am nga ci yiw mu woo ma ni ma lu yow ya kooku loo ko jox lan la ma expliqué ko li xew. waaw. la ilaha kon lii la ma waxoon lu tax waxoo ma kon ma ne ko du ma la ko. jaru ko jaru ko loo mën a. naa ko rek. wallaahi mhm. wallaahi ma ne ko maa juum sax. Mhm. ba wax waa wax waa ji ni ko. waxuma ko li xew. waaw ba mu lay woo. Mhm. nag bugguma woon kenn yëg ko. mais nit dafay raxas moroomum gorom. xaalis dinañ ko am. alal. dinañ ko am mais ku dund ba déwén ku lekk ba déwén. loolu yàlla na ma ku dee sa wërsëg jeex na fër ji am ci addina bi moo moo garaaw. non man man gis. ne yàlla mi ma tiim xam na ni daf. ku ma xool ne ma ne yogg sax xam ne man damaa feebar. non dam non tiit ci réew mi. ah, ah, ah d'accord. Euh, euh, Adja Maguette. loolu gis nga semaine bii te nag te nag ba pare. benn affaire tam bëggoon naa ñu dugg ci ñu ngi jeexal. Mhm. Euh, xale yu jigéen ñi nga xamante ni dañ leen di maye. Mhm. sama yaay daf daan wax ànd boo gis day sël. dëgg la. del sóoraale ëllëg. dëgg ndax ànd boo gis day sël. Mm-hmm. te làmmiñ baaxul. baaxul gis nga loo dugg rax kook làmmiñ. da nga ciy génnaat bu gaaw bu gaaw allah. sëy may nañ ma lii muuraay yi kol yu weex yi yëpp sama jëkkër ji lii sama jëkkër ji laa nañ ko wàññi yaa booy. réseaux sociaux kiiwu ma leen de kiiwu ma leen de blâmewu ma leen de waaye nag. dama gis sëy bu masaana am ci jàkka ja lañ koy wax bu ñu xutbaa ca jàkka ja ñëw dellu siwaat ci kër gi ñu foto léegi photo sax amatul léegi album amatul léegi li am mooy dañ koy dagg dugal ko TikTok hmm. dagg ko dugal ko réseaux sociaux nañu moytandiku cat ay xale lañu nga nekk ci buntu àddina di soog a dugg ci sëy sëy ba dara lalagu ko loolu da nga koy waggar hmm. nga téye ko te nag fi ngay waxee ne sama jëkkër ji tebbi naa aas wala nangam boo moytuwul bala ngaa def deux ans. di nga rus a taxawaat ne ki ma taggoon kat nii la ma def. dëgg la ànd boo gis day sël. nañ nañu daw cat daal. xale yi nañu daw cat. oustaz dañu wax ci. nañu cat. dañ ni ba gën a tuuti moo ci ëpp njariñ. Mm-hmm. Mm-hmm. sama yaay dafa daan wax ni ma. sa papa fanweer la ma may fanweeri dërëm. ba ma xëy dama ko jébbalu ci moom. wax boobu intéressé ma nag. Mm-hmm. dafa xëy jëlaat fanweer yi jébbaloo ko ci moom. ban ko mayee fanweer. waaw nee na dafa xëy raam ba ci moom mu jébbaloo ko ci moom. maa ngi ci ziar waa tey ba Ndiaye ndax foofu la sama France cinq macha allah. mu dinu dinu dinu ñaax ci yooyu. Mm-hmm. wax boobu nag intéressé ma damay dox ci ba mu yàgg mu intéressé na man sama jëkkër noonu laa ko bëggee barke yonent bi. Mm-hmm. kooku dama ko daan xool ba mu yàgg sax ma dama ko yërëm. xam nga lu tax. su mu saan ñëw indi xaas dama ko naan jëlal xaas bi def ci sa poos. yal naa lijjanti te mu lew. amin yal naa lijjanti te mu lew. waaye tey jëriñoo ko ah. waaw xam nga xam nga lu tax. mooy indi nag. ñoo jëlal def sa poos bi. yow loolu dong moo la ci intéressé yow jàngal xam c'est c'est c'est que yéen ñii ñii itam. ndax sama jëkkër dafa baaxoon. waaw non non dama lay tooñ rek. xale yi léegi ñi ciy def lii. Uh-huh. ñu raar lañu. non non man de amul la xalaatal. gis nga tuuti lañu. gis nga may gu jëkk yàlla mi ma tiim bu dëkk ko gën. Ah, ah, ah. may gu jëkk sa sa jabar jéema yor bu dëkk ko gën sa jabar jéema yor ku ca mel noonu. gis nga tàggu ma ko de mm. léeg-léeg de may song naa ma lu tax jëlaata ko jëlaata ko may leen li ma yor daa sàppeegu. geex na. ñu ne lu tax ma ne Pape Hann yaa ko jëli woon. Mm. maag yow noo àndan wëri ko. Mm. ba nu ko gisee xam nga lu ma jëkk a wax. waaw jamono neexut. te jël jëlal ma fi apartement day métti. nan dem fa gën a sori ci Ndakaaru. nga xam ne saa yi bokk duñ ko xam. Hmm. ba di ma xas. dégg nga. boo fa amee néeg bu 20000 baax na. barke Seydina Muhammad ñu dëkk fa est-ce que te nag te nag bu ma ko bu ma ko présenté nga xam ne jigéen laa takk. waaw ndax man bëgguma lu ñaaw. day am yow dara nga am lu ba fa gën a sori ca àll ba man jël fa néeg may mi suñu tànk yi ci biir lay fanaan. ndok ñaari at mu dëkk ko fa. ndok ba yàlla may ma li ma may tey. jeex na macha allah moo tax gis nga yii nii. xaar na ko fa waaye yow gore nga dafa ko jàngal yéen. Mm. yéen ngeen di ci def ay waxtaan mbéy. Mm. gis nga njaboot googu nga ci am barke lay doon de xale yi nga wax du topp TikTok bi sama jëkkër may na ma ñaari million sama jëkkër may na ma ñeenti million sëy du loolu sey jaamu yàlla la. jaamu yàlla la de. sëy yàlla xam nga xoolal da ngay nekk ci kër li nga wax dafa garaw de tagg tagg sa jëkkër dem ba yàgg dootoo xam looy wax nga nga kersaw ndax la ko doon tagge ànd boo gis day sël. day sël léegi ci am sol sëy neexul. Hmm. góor ñeent sama moroomi góor yëpp ma interpellé leen. Hmm. nañu yërëm jigéen ñi. Hmm. fàllu damaa toog yal na yàlla yeesal yërëm mi dañ ko fàllu lu la may mm-hmm. mu ni ma yërëm jigéen dëgg la dëgg la segalu ma beneen baat dëgg la ma ne ko may fàllu yërëm jigéen mooy lan mm-hmm. mu ni ma waaw soxna ndey mii ci kër gi mm-hmm. dafa bàyyi ñëpp wut si ma dëgg la yàlla di ma may teraanga ma ko ki xalaatal pour bu ma may teral ko ba ma amee waruma ko daal di ànd ak man ci benn benn garage ubbi ñaari oto ñaari BM yu zéro kilomètre mu ni ñoom moom laa ko wutal macha allah oram baa ngay ma dégg. mais loo xaaral doo fa fekk yàlla fay ci wax la gis nga boo amee boo amee doom. waaw am di jaay. waaw am càmmiñ. Mhm. di nga di nga xam ni ngay nekk toog rek. nga jëkkër. <laughs> day yërëm jigéen mhm. gis nga am na ci yoo xam ne yàllaay fay. Mhm. doo nekk ak jigéen te ba ngay ñàkk. nekk ak jigéen jigéen di la dimbali. nga xëy ni ko wëng nag. fooy fay tey. da nga wor. Hmm. yàlla dafa bëgg ko wor. déedéet dina am neneen noo doxalee noo xam ne nit ñi dinañ la yërëm. te yërmande jooju jépp nag. Hmm. yàlla doo koy daal di ëmb taxañ nag teg ci ci pala ci kaw taabal gi toog di la seetaan. ak a metti. ngeen hmm. nga yërëmante say daal xale yi xale yi la ak bégalante. yi daal xale yi nag xel bu baax a baax yi. mariage yi ci réseaux yi. <laughs> non yàlla mi ma tiim xam na ne tey ji Euh, li may li may gis. ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi. yi fiy xew du Sénégal. te nag lii dafa war ku nekk. dafa war ku nekk. Mm-hmm. média bu nekk nga wut temps d'antenne. Mm-hmm. ñu waxtaanaat ci réseaux sociaux. Mm-hmm. di ci waxtaan ak sunu njaboot di waxtaan ak mënta ne état mënta ne ci état yi wax na ko bàyyi. gis nga gis nga bu ñu ah. état dimbali moom bu ko wax. gis nga dañuy defar ci biir kër gi. télévision jàppale ñu comme ni El Hadj Ndiaye def jël émission kër gi tey teg ko pour muy wax lépp lu jëm ci kër gi mhm. man lu ma neex laay man nee naa leen ñaari at a ngi nii gisuma El Hadj Ndiaye ñaari lu manqué ñaari gisuma El Hadj Ndiaye damay def sama liggéey xam ne lii kër gi la nga dem dañ ko war a def ci kër gi waxtaane ko ci kër gi ñun nañu jëkkee télévision yi ñëw dooleeku si mhm. Eva Tra ma nga TFM mhm. am na ñeneen ñu nekk seen TV nañ leen dooleel ñuy jël yi programme yi di ko teg heure yoo xamante ni sunu doom yi dinañ ko mën a seetaan tey samedi la xale yi jàngiwuñu ñu ngi ci kër yi di toog bu ñu paree kenn ku ci nekk nga woo sa doom nga réunion ak moom wax ak moom waxtaan suñu toogee ba xam ni mënatu lii tey jii liggéey nañu biir kër gi ba pare nañ ko dem tasaare ko ci quartier bi chef de quartier bi def ci waxtaan parce que chef de quartier bi nag du du du certificat den xawma lan loolu ñu lay jox pour wane ne syndicat domicile domicile du loolu rek moom mooy liggéeyam mm-hmm. da ngay jël euh, euh, koñ bi ñuy def ay séance di waxtaan parce que réew mi moo tollu foofu mm-hmm. suñ ci paree nag bu ñu fëggee maire dinañu wuyu bu ñu fëggee président dinañu wuyu mm-hmm. xool li nga xamante ni mooy gaañ di yàq ñu di ko dindi ci réew mi surtout nag réseaux sociaux béykat yi mi ngi ci réseaux sociaux. waaw maa ngi ciy profité di nuyu suñu. sër yi mi ngi ci sociaux yi sëru nocc yi mi ngi ci réseaux sociaux yi. Oh. d'accord jaay leen jigéen ñi nañ jonge. waaw surtout nag yooyu. nag bu ñu demee nag ba. ba ba ku ñu takk. sa warugar mi ngi ci réseaux sociaux bi. ceenu or ji la waa may mi ngi ci sociaux bi. robu dama rek waaw ma ne. mais bu nit tëdd. la ñu génne ko ci réseaux ah, sociaux. ah bi ñu tegee laabaan di laabaan nit ki di baatare xaalis bi ci kawam damaa dar sama gémmiñ. sër baat deret ja laa gis. aywa subhanallah wallahi alazim wallahi alazim ñu génne ko ci dina toj réew li ndaw wax nii. te loolu kat day tax a yara daal li mu wax li ma leen wax nii. billaahi. day tax a yara daal wax fii. nañu ci laabaan laabaan ñu teg la sàngara laabaan gi ñu génne ko ci TikTok. Oh. billaay maa la ko wax bu oh. yaakaar ni nag du la laawaale. Hmm? yaa ngi nax sa bopp. état na ci jóg mënta ne du du dëgg. dañoo jël ay ambassadeur teg ko ci réew yooya. jël ministre des affaires étrangères teg ko foofa. Hmm. nañu bind seen i rapport defar seeni affaire ni lii la ñu bëgg ci réseaux sociaux yi ña nekk foofa te di sénégalais. Hmm. ñu wax ci. parce que saaga yi metti na. jaare fa tàggoo Oustaz Ndiaye. doy na doy na waar tey may naa <laughs> naa la 10 minutes tey. waaw waaw dafa neex xam nga lii dafa solo a waxtaane mhm. Mhm. dana tax ñi nu war a ñu capté leen. Mhm, bu ñu defaree benn nit rek. dana sant yàlla sant yàlla te yow nit ñi sopp nañ la. macha allah man bi seen pay aw seen pay. a ah. yàlla xam na ko àdduna bi àdduna bi aw seen pay. man ñëpp xew day toog ak xew. moo tax bi ma nee ñëwal ma ah naa dem ndax diwlin. Mm. bu ngeen àndee ñetti fan miinoo. waaw ah. booy seetaat xam ni ndox nga la bu teel bu ne de la def la saaj bay xëy na. da ngaa baax da ngaa baax sekk te ñu yàgg dafa baax jërëjëf Moussa Diop mi nga wax léegi ñoo koy ñaanal. waaw na wayaf. wallaahi yan bi yàlla na wayaf doomi Adja Dior Diop jë yàlla na wayaf. amiin ak Bachir. nit ku am jariñ la Moustapha. ndeysaan te sëñ Mbay Jaxate daa waxan ni. Mm-hmm. Mm-hmm. xarit dalay xaral as lëf cay yëfam yamu am. Mm-hmm. koo xam ni kii du xarus lëf jox la doo waayam wallaay dëgg la doo waayam ngeen ànd ak nit te du la jariñ dara. Hmm. wallaay moom day dimbali ba dimbali ku mu xamul. ku mu xamul dëgg la dëgg la. kon nag tabaarkalla man de ma koy defal xaw ma yàlla di ñaanal sama waa kër ga ma jóge waaw muy TFM Fitir Média. Fitir Média maa ngi leen di nuyu bu baax laaw la sunu waajooju Yuusu. waaw du may tagge. Mm-hmm. am naa fu ma ko mën a tagge nag. Mm-hmm. ku la defal lu baax da koy wax. defal lu baax li ma gën a ñor ci moom. Mm-hmm. ñaari ñaari ku jóge fa moom du ca moom. dëgg la dëgg la ndax moom taxaw na ni fii du ma dàqe dinaa changer nag. Mhm. waaw. maanaam a la place bi yóbbu la bee place. Mhm. waaye dàq laa gën a bañ. ñu ne lu tax mu ne bëgguma ko fi toroxe. ndeysaan te nit boo ko dàqee rek torox na. yàlla na ko yàlla fay nag Youssou jàmbaar la. Mhm. ñam ko dénk waxan naa la barki démb ni la Mara Dieng. ak El Hadj Assane Gueye ñooy samay patron. Mara moomu dinaa la wax lu tax ma wax la loolu. waaw rapidement Assane sama jarbaat mais Mara. bi ma nekkee TFM ay at. ñoom xamaguñ ma. ba mën maa defal benn contrat. waaw bi ma ko nee damay bàyyi ndax maa ngi fi bëgg a yàgg. Mm. dama ni déedéet liñ la war a jox na ñuy daje cosaan. ma di la ko jox. weer wu ne mu jox ma moo tax a toog ba ni mënaan na ñuy daje almadi léegi. waaw <laughs> ah, macha allah tabarkallu noo ngi sant la. di sant fa ma ni ma ko waxee Ndeye Ndiaye tey sa xarit bi. waaw ah, ñu ngi koy félicité bu baax une battante ah, waaw jigéen yal ko yàlla dolli ndam moom. allahumma amiin allahumma amiin wal joojo ko moom jël na turu wal joojo. dëgg la démb ñëw. waaw yal na ko yàlla sàmmaat. amiin réew mi yàlla def ci jàmm. amiin amiin Seck. jóge nañ ci wate yi. waaw ñii gañe du du kenn ah gars yi leen. Mm-hmm. yàlla moo wëlbati addunaam waaw gis nga nag lu yàlla def. Mm. loo ko bañ bañ asal day am. day am bu ko nëgalul boo ko dee jéem xam ni doo laawu wasalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam soo bëggee ngoor yàlla taw ci toolu ngoor nga bañ ngóor yàlla taw ci toolu ngóor kon gëggal ngóor benn yoon te noppalu foofu la jeexale ma olo falal ko noonu donc macha allah fa tabarakallah ñu ngi koy gërëm bu baax a mu gërëm patron man nee naa leen keroog dama toog ba mu yàgg man leen est ce que man 2STV laay liggéeyee <laughs> parce que début décembre ba début janvier teguma teguma sama tax Ah. ndax fii laa ko ni sama soppe bu xam ne dégg na ko madame Ndiaye ah. te musuma ko gis sama soppe nga boobu ba léegi lijjanti waaw waaw madame Ndiaye di la na lijjanti maa ko yónnee sa numéro ci mu gaaw dama ko bañ nag ba léegi lijjanti na ma il paraît que guddi yi ñu toll ah, guddi yi ñu toll daf fee nekkul ndeysaan looloo tax macha ngi ci waar wi yàlla bu baax rek toujours di julli ci yoon voilà tey leeral xol yi voilà ah man nag maa ngi ci profité di sant rapidement sama goro yi mm-hmm. ci kër ga ak sama njaboot bi macha allah macha allah di sant Alimatu Sadia la àndal. waaw moom infirmière la mu nga fële ci eh, benn clinique. Mhm. Eh, benn càmmeñam bu yaayam gaañu. Mhm. papaam gaañu ñu koy wax xaadim. Mhm. maa ngi koy jaale gi nga sama jëkkër ja ne. mu nga ne ji moom ak eh, njaboot ga ca kër ga. goo <laughs> xam ni. njabootu jàmbur la nu sama njaboot la maa ngi leen di sant sama njaboot googu. nga xam ni Sarata fa jiitu. Yacine Seck. Mame Bousso Seck. ak Juma. Ah, ak sama goro bi ne France. Mm-hmm. Ah, bu nu koy wax euh, Marème Gueye. goro bu baax chance la ah, de la moom mu ngi fii ci almadi mais léegi fi mu ne mu ngi France. Mm-hmm. ma di ko ñaanal di ñaanal nag Amadou. Mm-hmm. Amadou Bamba sama doom. di ko ñaanal yal na doon milliardaire. Seydina Muhammad allahumma amiin sama caat ma it. waaw maa ngi ko ñaanal baax boo xam ne. ko mm. ah, kooku sama caat la moom sama caat bu góor la mm. maa ngi koy ñaanal bu baax a baax mm. waaw ñu ko wax El Hadji Malick Ndong Mbaye la mu fay ut yàlla na ko am di ñaanal amoo 456 mbayang aw ma noonu fa ma dëkk yaag man a ma sopp li maamu laay ñëpp a ma sopp yow da ngaa sopp di ñaanal sunu maire da ngaa baax Mor Wore Gueye di dellusiwaat ci jaal topp nag jaal topp sunu jaal sama waaw sunu jaal <laughs> si waat ci nga xam ni mm. mooy boo ko sa dekkan suñu président waaw yal na yàlla defal ko jàmm allahumma amiin di ñaanal ñépp mm-hmm. yàlla na ñëpp am jàmm amin amin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man na ñëpp laa yéene jàmm jërëjëf yàlla ko yàlla sama bi yàlla na ma ko yàlla fay allahumma amin ci barke yonent bi di ñaanal sunu ustaas waaw xam nga lu tax njaga waxtaan dafa am solo ndax te sooy waxal nit nii lay mel macha allah dafa xam nga nit yi média yi suñu toogee dañuy daal di am benn amur bu dugg seen diggante. waaw te yàlla rek tax. waaw nit ki nee naa la sànq soo xoolee ci moom yàlla yàlla ngay yàlla ngay gis jërëjëf jërëjëf maa ngi ñaanal ñëpp nag di la ñaanal nag maa ngi lay ñaanal yow jàmm nga yam <laughs> yow <laughs> dama toog ak sama sama ma bokkal ndeeg baay waaw ma day am teraanga lu ne jaay na ko ndax yaayam ndeysaan ndeysaan lu bon rek la deful wallaay waaye lu ne jaay na ko ndax ah, yaayam a mu ne ma kooku nag teraangaam mu ne ma du tuuti de <laughs> ni ma mënee dër fataay ko waaw dër fataay ni nit ñi dëree fataay ni def ñaari loxo mais gauche ak kii non non man dama ko def boo ma ko du cumaar bii parce que bii tam euh, kiiwul. wallaay euh, bii bii bii comme. loxo càmmeñ la voilà da ngay def nii def nii loxo bi di dër nii. Ah. cëm ak ma cee aayoon. <laughs> di ñaanal nag di ñaanal ah, Aji ah, Yaasin. ndeysaan. sama doom bu jigéen waaw ak Sofia mi nga xam sama yaay lañ ko jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal bu baax jërëjëf euh, Aristide jégal ñu jégal ñu bu baax a baax doom yi ñoo xaw a a sa kan dëgg la macha allah di leen ñaanal di ñaanal sama borom ñaanal nga ñëpp Matar di ñaanal waa Ndar jërëjëf di ñaanal oh, déglul nag di ñaanal ki nga xam ne Mouhamed laa ko tudd kooku moo nekkoon sama garde corps dama ko ñaanal ak seen jëkkër yi Mouhamed moom seen jëkkër yi nga xam ne Aline Barara Mbaye kooku mooy soldaaru Serigne Touba ah loolu mënul ñàkk jërëjëf di ñaanal ñëpp ca kër ga boo demee ñu ngay togg mi suyaak eh, xar yaak tubaab di ñaanal sama doom di góor ju mag ji kooku eh, dama ko léegi dama ko ma ne ko goro chance la lépp moom la goro bu baax chance la yàlla na ko yàlla bàyyi ak ay goro kooku ku fa sëy si mooy sa jëkkër. mooy dem nga may tàggu. lu jeex moom nga koy laaj mën naa tàggoo bala ma arrêté di <laughs> ko sama yoon nekku ci damay wax ba ba naaw <laughs> tàggool <laughs> bàyyi ko ba ma jël ko ci suuf mu xam donc euh, goro bu baax chance la ni mu ko waxee yàlla may ma benn goro boo xamante ni nee naa leen guddi yi ma toll ah, mooy samay tànk mooy sama loxo mooy samay bët mooy sama lépp Mhm. dañ may tere wax ci moom nag parce que du ma wax ci moom mukk te sama rangoñ darul sama dënn. waaw loolu moom dëgg euh, yàgg nga koo wax. na ma ko bàyyam tuddee moo rafet. ndeysaan tuddee na ma ko lu yàgg ma dem ci waawoon xew. ñu ne ma yow bi nga yëgee sa turandoo bi noo def man leen turandoo ban ñu ne ma ki ma jàngee ngay tuddee. ndeysaan ma ne turandoo ma daw ci kër ga fekk mu ñu uuf ko. ma ko Madiagne lii nag lu tax waxoo ma ko mu ne ma lu ma la ci wax. sama rakk nga tuddee naa la doom kay lu ma la ciy wax. jeex na dina di nga dox ba yëg ko. kookooy mbëgg doom jooju tey ma dem ba takkal ko sama doom. Ah, mu ñëw nag ca kër ga mel melakaan woo xamante ni samay samay frère ak samay sœur dañuy wax ne samay frère ak samay sœur dañuy wax ne kii amul Sénégal barki Seydina Mouhamed Mbayang Gueye amul Sénégal yàgg nga ko wax nag gisuma goro bu mel noonu dama koo bàyyeeg yàlla lu na jeex na lu waaye leble moom ngay fayee ko euh, donc euh, maa koy nuyu bu baax di ko ñaanal ak wér di ñaanal ndayam ji nga xamante ni li nga wax sànq boo nampee dangay ngay tokkamti ko ah, booy namp sa yaay teen di xool ah, kenn mbaw ku mu jur noonu rek ngay mën a mel macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi àndoon ak ñun di delloo si waat loo nit ñi seen xel xam ñu xam fi ñuy waxee mm-hmm. euh, xale yu jigéen ñi nañu moytandiku mm-hmm. boo seetee diggante deux ans yi bépp mariage bu ñu dugaloon ci réseaux sociaux bi tas na waaw na. kon bët baaxul. bët baaxul la ma xool nag sama bopp ma ne ah dañ may marié te mariage yi duggoon ci réseaux sociaux yi ñu taxaw di gërëm jëkkër ak or baag nangam sangam mariage yëpp tey ñu ngi tiiñalante. Mm-hmm. ci biir réseaux sociaux bi waat sama mariage du dugg réseaux sociaux point. dëgg la de nañuy ragal. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci li mu gënoon ragal muy cet mm-hmm. nañu ko moytandiku. te nag ku doon waxtaan ak nit. ci suuf ah. li nga xam cat li muy def. yonent bi nee na gone gu ma ci woo. mbayang waxtaan ak man ci suuf dinaa la wax li cat di def. mbayang yonent bi nee na. sama ñoom ñu bari nga tëdd ca bàmmeel lu leen fa dugal cat. cat kon mbokk yi yàlla ci yàlla musal. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm ñëpp nag. di féliciter maire yëpp di encourager ñi nga xamante ni ñoom euh, ñoo wàcc waaye mention spéciale ni ma ko waxee. Grace Diène euh, madame le maire sax laa koy tuddee. macha allah fa tabaarkàllaaw ni nga mel dong la yàlla defal nag mhm. te ku ci foog ne dara passé na boobu jum nga dara weesagul saa si yaa sincère yaa gore mhm. yaa baax yaa maandu yaa jël xale yi ci yoof uuf leen ba ñu àndandoo xeex-xeex bi tey ba cëppaandaw gi ñëw te benn problème amul te nag yoof lépp sotti ceeg def ci la gis nga ki fi jóge ak ki fi ñëw ñoo bokk maam waaw ñoo bokk maam ah, gis nga kon nañ ko rafetal comme ni ngeen ko rafetalee di gërëm bu baax a baax monsieur Moustapha Diop maire ñi nga xamante ni ñooy mairie Tëngéej jotaguma leen xam waaye daal naa leen benn maire laa xam muy Moustapha Diop ah, Eh, voilà baayu Bamba ak Bachir. kooku nga xamante ni doomam jooju moom la tuddee baayam Basiru Diop Adja Dior Diop ba yaayam tabarkalla macha allah koo xamul noo koy def nam la def nam la defa tax gis nga dafa am ku xamante ni doo ko fàtte ki la bett ñëw faxas patron liggéey faxas jëkkër faxas wayjur faxas la ñëpp ñëw ne la coppet yóbbu ñu lay jàpp di wommat nga dellu siwaat mu ne buggum nga dem ba tubaab yi ne la non bii nii bii nii mu ne non nañ toog régler lépp maa ngi yónnee waat loolu kooku noo koy def jàmm rek am nu may def El Hadj mi nga xamante ni moo tax Moustapha Diop ak jabaram xam ma dëgg la Ndiaye jaata yow it yàlla na sa jàmm yàgg moom ma ah. ndax nag maree ma ma indi woon ci kër gi te boobaak léegi nee naa leen kóllëre doo nga leen bàyyi ak man waaye defatuma fi loo xamante ni nit mënu ko fi mais kóllëre baax macha allah waaye nag ah. xam nga na ngaa wax léegi ne koo xamul na mu lay def mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu def ñaan waaw kon ñaan comme tey laay kile naa ba kii non doo yàgg yow gars yi mënuñu laa ñàkk ñaanu fajuk aajo laay ñaan waaw fi amaani laa jaa ngi noonu kon jël leen ñaan gi yal na ko yàlla def waaw Aristide merci beaucoup maa ngi jaaj jaajëfal ak Laye Sarr toute l'équipe amiin foo ko déggee ci sa nopp sa aajo faju waaw ay bismillah wa salliman ala nabi wa قلبي وجملة سحابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها وحققا سعادتي يا ربي يا آمين يا رب بنا وخوينا وكن لنا وهب لنا حسن ختام ربنا آمين سليا على نبي وسلم وقدمه حاجة كل مسلم آمين يا من آمين اللهم آمين jaajëf ba beneen yoon kaay nag ma wax la ñaan googu naa la ci jox addiya man murid laa